doom ñaa ngi jëm yoon de te gàcce baaxul am naa aleel li la sa jëkkër jiiñ soo ko defee ma fay ko aleel mu yem fi mu ne ko billahi bàyyi def ma fu mu la woon nañ fa def ñu sànni convocation yi lancé ko jëkkër ji jël joxi bokkam ndaw si jël joxi bokkam ñu ànd nag jëm attekaay ba mu ngi mel ni ñu ngi jëm Tamba di tànk yor giléem ku ci nekk ngi yor puutar bu doy sëkk boole ko coggale xar bu doy sëkk warga wu doy sëkk ak i tabal say tànt buñ doxee ba bëccëg ñi tekki fii ñi tekki fii jànq ji di woyal jànq ji wuj njëkk yee di woy fële di ko léexu dara amu ci bu jant sooy ñu nelaw buñ xëyee dem di ko def ba keroog bañ ne suba la ñuy àgg góor gi gis ndaw si sawarul keroog feccul morom yi fecc di xaqataay mun a yogg rek mu xëcc ko ba ñu sori mu ne ko doom noonu naa la ca Dakar liñ la jiiñ soo ci laalee dara wax ma ko ma fay nga dëgër bopp ñetti weer oo naa la fu nekk ba ma génnaa nga sama nawle ëllëg la ñuy àgg ci dëkk bi gis naa sawaro waaye dana wóor na ba ma rusloo ma fetal mu ne ko bàyyi wax nga dëgg de sawaruma dara waaye li ma teree sawar du dara lu dul daf ma wóor ne ki ñuy fekk mbindeef la te mbindeef dina fàtte dina juum waaye bilaay buñ jëmoon ci yàlla du ma tiit lu mu mën mën mbindeef la mbindeef dina juum dina fàtte loolu rek ma jàpp mu ne ko kon nag dinaa def ak ñoom sart suñu demee balaa ñu maa àtte balaa ñu maa àtte dinaa nëbbal ki nuy àtte lëf lu mu fekkewul bu ko turwee ma nangu mu àtte ko bañ demee ba ñu ngay dugg dëkk bi ñu arrêté bokkuñu fu ñu dal mooy leen ah dinañu dajekat ci ay akimba waaye duma nangu mu àttee ma te nëbbaluma ko mu tural boppam li mu ko ne bu ñu ne ko liibar nga ba mu tekkee ca kër njaatigéem ba dal na suñu sangu solu dem dafa macc benn tàndarma fomp ko ba mu set mu dindi mbuñu gëm fas wi dugal ko ci nëbb ko ci ñëw ñu entré leen ci salle bi daw si génn nuyoo ñoom ba noppi su jaax la tudd mu yëkkati loxoom ne ko ñi ñëw de ci laa waaye man de dama la nëbbal loo xam ne balaa maa bokk si ñuy àtte nga turwe ko mu duggaat ci néeg bi dellu siwaat teg loxoom ci jéem sëgg siggi ree ne ko tamratun fi kumratin xooxe tàndarma ci mbuñu ko fas soo yeexee dellu fas wa dee toftan maa ngay toj dafa bëgg a saw mu daw ba muy rocc tàndarma ji rek la ndaw si fas bi si nga waay mu dellu si ne ko d'accord naa ci nga àtte ko ñoraan mu sadd bayit ne dëkk bu tëdd ngeen jóge yéen dëkk boo xam ne ngeen ji mbindee fi lay juddu toll na ci juddu sax li leen indi du càcc tuum ak jigéen ak góor la xool xool ne ndaw si la ñu tuumaal indi xool xool joxar bi ne fàkkee mee ko tuumaal waaye sama waaye da nga juum sa jabar ji ku dul ndeyam ak yow xamu ko sox yépp tàkk mu sukk nag raam ci goro bi na ko naa la jox gileem yi toll yi ma la joxoon nga delloo ma ndaw si mu ne ko bëy lay ma xiyaam taax dootu leen wër waa jooje nag tudd fàkke moo daw ca Abu Sufyaan xaritam la woon ne ko tàggoo naag ngeen ji jigéen mënatuma cee jot waaye rikk bu la ca kenn dikk boo ko takk takk sa nga de waa joojoo ko takk nag jur ci ma yësit jur ci maaw yitu maaw yitu mag gi jur yësit yësit rey ba asana ko siin waaw isa jaaka almuminaatu yubayyinaka ala la yusrikna billahi shay'an soixante-dix yooyu comité soixante-dix jigéen yooyu fekk woon na bi ndaw see doon seen présidente def na na bi lu ko naqari ba tay keroog ba ñu rey ba ñu rey am sutu ci uhud moo xar biir bi génne res bi yëy ko tufli ko na bi góor googu laa lay nettali ci preuve yu wér ne alburaaxa nga yem ca baytul maqdis dafa doon jëlal rek góor gaykat Abu Sufyaan Saxr la tudd Umayyatu ko jur Abdu Samsam jur ko Abdu Manaaf Xusay Kilaab Murata nga dog ngir mi dem moo wax ne ginnaaw bi mu tuubee tukki naa baytul maqaddas chef d'état ba recevoir ma di Qaysar ñu toog di waxtaan ma ne ko waaw waaye sunu dëkk de benn waaye ngi fa bu mën a fen ne yónnent bi waaw wa qaala allasina kafaru lasta mursalan qul kafaa billahi sayyidan bayni wa baynakum wa man indahu ilmul kitab fen yi sax boole na ci ne ca weer yële dem na ba asamaan juróom-ñaar ne na jaar si na ci sa dëkk bii bii nu toog di waxtaan ne na julli na ci sa jàkk ji benn bëkk néeg nga fa toog Abu Sufyaan ka da nga ko nettali ginnaaw bi mu tuubee benn bëkk néeg na ñokk képp na wax na dëgg Abu Su Xaysar xool ko ne ko lu la ko wax mu ne ko guddi gi kii wax man maay bëkk néegi Baytul Maqdis jàkk ji maa ko yor guddi googu bunt bi féete ndeyjoor tëj naa ko tëj mu tëj ma oo surga suma bokkal jàkk ji yëpp ñu jéem jéem mu tëj tëj may leen nañ ko bàyyi ba suba dafa reposé ministre yi yëkkati ko waaye ba ma xëccee ci suba fekk naa fa jeexiti daaba ju ñu yeewoon biig yeewi ko bi mu ko laat nettali kat tuub na waaye loolu fekk na ko moom ca xaysar kon alburaaxa nga yem ca beytul maqdis alal buraaxi saraa fi muntee lahumoo jaal xilaafu faraajeex julla kutbiimi dun fa la ñu yem mu monte jibril ànd ak moom rafiquhu ruuxu في استفتاح أهل السماء ديبانا واستبشروا من قادم قدمي gunge ci olof ñaar la koy waral te yooyu ñaar dara laalu ci nabi xam nga li waral gunge xamuloo ko ci olof ñaar yëf rek ragal fi ak bañ fee xam lu ci tegu kaay gunge ma ñaar yëf rek fi nga jëm dañ fi ragal mbaa xamula fi waaye boo fi xamee ñemeñ fi àndandoo ngay am waaye kenn gunge tuli jibril bi muy ànd ak nabi gungewu ko daf ko doon liggéeyal asamaan suñu jub rasulaay kat da muy def lu gaaw gaaw waaj na sañse na jaras na bopp bi sañsel nañu biir bi ci ay waar ak al asraar mu peñe laal li koloñ sol bot yu rafet rafet rafet kaalawu door a dem bu jubee benn porte day pelome jibril naan kang kang ñu ne man mu ne jibril ñu ne waman mu ne muhammad mu ne a ursil koo kane mu ne jibril koo àndal muhammad malaaka mu ci ne nag bi mu koy laajal koo àndal dafa gis nabi te yëgoon nañ ne mooy ngën jim bi des fois yëguñu juddoom ndax kaw la ñu dëkk mu ngi ci suuf ah yónni nañ ko ñu ne waaw mu ne marhaba ubbil ko asamaan soosu malaaka ya fa nekk solu réceptionné na bi ànd ak jibril ba seen région fa mu jeexe fa seen région jeexe région kees jël ko ba sës ko njaareem arrêté asamaan soosu malaaka yi wàññeeku deuxième asamaan jibril fëgg ñu laaj mu ne Mohamed laa àndal ñu ubbi jóg puus ko ba mu dem ci asamaan soosu mook moom mook moom ba sidratul muntaha asamaan juróom-ñaar jeex xam nga conversation bi fiñ ko defee pire moo mat a wax fi yàlla waxee nabi nag fi mu ko joxee julli gi ndax ba mu agsee loolu ñuy wax apéritif la ko defal daf ko jox naan mun naan ba noppi ba ñaq wi deñ ñu door a def table ronde de travail kenn du moom xayral xalq billahi biñ demee ba jeexal pays attaqué nag jibril ñëw ci palaasam jibril sidratul muntaha lay yem photo yi bu rëy la fa yor boo demee suuf si suufi sidratul muntaha xaalis bu ñu mulañ la ba mu nooy mooy suuf si boo demee malaaka yaa nga raw ci biir ni njéeréer yu raw ci taw fa lay toog nag jàkkaarloo ngàkk lay maxfus ba kolos bi jibee rek mu jël kuréel bi ba tëg moom asamaani juróom yaa yëf ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dellu si toogaat bañ fa àggee la nag gisub taxaw na bi ne ko doxoñ dem mu ne ko mënatumaa dem fii bu ma ko passé benn jéego rek leer aras lakkama wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanu saafun wa inna lanahnu musadiqun foofa nag li xale bi doon woy léegi foofa la commencé nabi gisatul mbindeef adratul ilahi yi xuus na ko ba mu jeex ba mu ngi ci ginnaaw baytul mahmur des nag moom rek kaw gi di leer suuf gi di leer day jot di leer asamaan di leer suuf di leer mu dégg nag ku koy tiire naan ko la yuddinul abibu ilal abibi mu ne jibril afi misli hada yetruku xalilu xalilo fii ni mu ragloo fii ni mu wéete ni mu dara yaram nga dima fi bàyyi mu ne ko sañu maa dem su ma demee we leer aras lakk ma foofa nag nebbi indiwaale nañu fi mburum tukki xam nga papa bu tukkee ba ñëw day indil doom ji bong bong am na bong bong bu foor bu nu nebbi indil nebbi mooy sunu bàyyi de maam adamaay bàyyi yàpp yi waaye nebbee bàyyi ruu yi adama buñ déggee ñu bàyyi mbindeef yi mooy abul jismi waaye abul rox mooy Moustapha moo tukki fu kenn musula tukki gane ji ko kenn musula gane indil lu mburu mu kenn musula indil kenn ndax ba mu doxee ñaari tànk jibril na ko mën a tumaa dem dafa wëlbati ko ni jibril comme mënulaa am de amula soxla soo yóbbante jibril na ko xagañ boo demee neen sama borom bu bés pencaa na ma may sama laaf yi ma tàllal ko ci saraat parce que xeet bépp jàll ba dem fuñ may affecté ma doo fàtte ba nëbbi àggee daf ko fàtte li jëlaalillahi waaw bu ismati suñ borom ne ko loo wax ci yóbbante jàmbur bi mu door a sukk Moustapha naka la si jaas ci pay bi si dirtu mun texee yëngu ma taqa albasaru wa ma taqa laqad ara min ayati rabbi alkubra afaraytum llata wa uzza wa ma nata dalitatu lugra ilakum addakaru wa lahu lura tilka idan qasmatun dawwe ne ba yàlla waxee man mënuma tontu daf ma laal laal bu kenn mënu la melal ci sama ween mu mel ni glace ba ci samay tànk ba laal bay teggee ko rek laa am xam-xam yi ñu jëkk ñak ñu ko ci ma daal di ko ne attahiyatu lillahi sakkiyatu lillahi tayibatu salawatu lillahi noonu la ko nuyu baat yuy tegtale nguur li ma gis tey tey bi ma gis ngand yi ma gis tey nguur piir yow la wax tagga yaa ko yeyoo yaa yeyoo jëf di sellal loolu la nuyoo yàlla taxaw yàlla fay ko ne ko asalaamu aleyka ayuha nabi wa rahmatullahi wa barakatuh yàlla delloo loolu nabi mooy li ngeen di taaya attahiyatu lillahi zakiyatu lillahi tayibatu salawatu lillahi foofu la Moustapha yem yàlla na ko salaamu aleyka yow ayuha nabi do salaamu laay rek nag wa rahmatuhu wa barakatuhu malaaka ye doon seetaan réception ba nag ne nañ profité bokk ci yóbbuwaale ñi fi nekkul ñoom ñoo ne asalaamu aleyna nu nitam wa ala ibadillahi salihina mu ne ko yóbbuwaale ko ñu def ko ci taay yi alaaji malik ne na ci nuuriye bi fa irhas dégg nga si raaj Malick mu mën a yee tamit nee na wa islaalum keral gañ doon keral gañ daan keral nabi bi aynin ciw niir fi lajiri ci njolloor loolu fa irxaasul fuuy la woon buy feeñal ne dina dooni yonent fuuy bi fees na fondation bi tegu na tax mi pare na bi quarante bi ñëwee nag quarante ans yi ñëwee ñu takkal ko garaat bi ci la ñu yóbbu li doon signalé yëpp na dina doon yonent parce que doon doon signalé na dina doon yonent doon na ko na bee ngay ñëw waasaltu qoray taasa siisi waasaytu ruqaatal maktubata minka ilayna wa nabtaqi minka أن تنتظر سويعة قبيل ارتحالك كيس الجنجي المقرئ القرآن جزاه الله خيرا واصلت الرقعة المرقومة ونبتقي منك أن تندبر سويعة قبيل ارتحالك ma dem de Moustapha ngay ñëw niir waa ngi ko siiwar labbi ba nga koy xool ba mos waa jànga naan inna saa wala labbi ba nga naan inna saa la umun maalo xobami bàyyi gii ngeen bàyyi guna bu day nii ci bagage bu day nii di fekk si teraanga ji toll nii coxor mënu koo passé koo xool yéen a bon te bu dul woon a moom dara du am na bi na yoxoos niir woon a yoxoos alaaji malik na lamaaraahum la waxoon léegi dana lamaaraahu kon damiri mun farit mufrad la kala damiri jam la woon lëf am na léegi alaaji malik du mooyu na gan ñëpp la wax la bi baa ngi na jàkk Moustapha commencé nag génne benn dossier di xool noppi na bi di xool dossier bi di xool bët yi di xool dossier bi taaj leen ñam bi di dawal bëtam ni muy lekke bi mu jógee muy xool na muy doxe lamaaraahu xaadaran bahira ba mu agsee ba mu dëj ko xool ko xaama la commencé yasaluhu di ko questionné say nelaw na muy demee fekk daf ko na ba aqlaata waxu za li tax Bahir wax ko loolu te xamul xërëm yi dafa dégg xureesin di ko giñe mu defe ne nabi ñu koy giñe ca la mu ne ko maa ngi lay giñal ci àq yàlla ji ñuy wax laata oza nga nga tontu ma ci li ma lay laaj nabi na ko ñooñu kenn du giñ jëme ci man ñoom mu ne ko fa fa billahi maa ngi giñ ci màggug yàlla di sàkku ci yow nga répondre ma li ma lay laaj mu ne ko laajalu la neex salma si mu génnee dossier def ni ma waxoon sànq xool ci dossier xool Moustapha xool ko xool ko waxaama mu commencé yalxaduhu di gestu na bi laxsan gestu sa diidan gu toftal wa nazara mu ngay xolit ilal amami jëm ca mandarga ya ca dossier ba nopp yi di ñu bind yéen yi di moom jëbi di moom sàkkal yàlla bi di moom xetug gémmiñ gi di moom doxin wi di moom lekkin wi di moom kon saa'ir bi moom la mu tëj dossier bi roof ko commencé di laaj baatin bi ba xama yasaluhu waaw fekk asamaan ñaata ñaata ñaata kilomètre la temps tant de mètre tant de centimètre géej yi yërmande yi ñaata la temps ci kaw temps ci suuf salaay suuf ñaata la temps nooy nele nangam nooy lekk nangam xaaji malik ne ba mu laajee tontu la dëppoog li ñu bind mu xool melo wi dëppoog li mu bind am na lu mu def waaw dafa génn ne man ba salaamaaleykum kan ci yéen ànd xale bi papa bu ndaw bi di Abdou Manaf ne ko man ma gis la lu ma doon fi yow maa ko jur ah ah wax ma dëgg Ibrahima dundatul mu ne ko sama rakk ko jur dafa faatu mu ne looloo am lu tudd yàllaa yëga bu ngeen passé fii un kilomètre dañ ko rey parce que bouquin yëpp signalé nañu juddoom signalé nañu premier voyage am ba sept cent labbee ngi tas ci réew mi di ko seet man la ci yàlla yemale man nag dugg naa ci diineem di la laa biire pour nga delloog moom bay alaaji malik ne waxaama yasaluhu mu commencé di ko laaj wal badru mubtada la ñu ne waaw mu ne zayiduna naat la fi ñu ne waaw mu ne yuniiratul kadaya ji xayra muxtatabi allahu akbar koo xam dañ ko naan yasalunaka yasalunaka yasalunaka yasalunaka du nakam fa ñu ne waxaanu mu commencé yezhalu di questionné oh Moustapha nangam loo ci xam nangam loo ci xam Maodo ne wal badru Moustapha mi ñuy laaj zayiduna kay suñu sang yuniru mu ngay répondre tilka dayaa ji yooye question xëy na mu tatumi du kuy nakka nakkal sax nangam nangam nangam nangam nangam nangam nangam nangam mu tëj dossier ba ok ko góor gi am lu mu ko déy Maodo ne xam naa la mu ko déy lama taxaqaqa لما تحقق تحقق ما قد ظن قال لهم يرددنه فأعلى المكر في الإمم أين السيسي لعله خرج نعم مع ما وصل فاخبرني في ارتقابه كنت لما تحقق تحقق ما غزن قال لعم ارددنه فأعل المكر في إمامي حاج مالك ننا لما تحقق بغا خمين دقنا تشغور ما قد سنة لما جرتوان dafa jortu woon na niir bii ku mu topp yónnante nga garab gii ñu tekki waxoon nañ ne ku ci tekki yónnante nga waxoon nañ ne it atam dina tolloo fukki weer ak fukki at ak ñaar noonu nañu bàyyim du dund it Muhammad lay tudd rasulullah yi jëkk mu juddu Qurayshim toow ñetti nit ci tuddul Muhammad ñett Ahmad nag amu ci woon Ahmad moom moo ko jëkk a tudd waaye ñett tudde woon nañu seen doom muhammadu te ñu ngi ko jële woon ci ko demee ne làbb bi yëg ne dina judd te muhammadu lay tudd kenn ku ne jëkkante tudd sa muhammad di préparé pour mu doon mii waaw waaye maa summiya ahadun ibnahu qablihi sallallahu alayhi wa sallam bi ahmada أما محمد فثلاثة فقط خمدة كان أحمد قبل أن يكون محمد وقبيل أن يكون محمود حاج مالك نانا بموري قرقي na li mu njortu woon a am xaara la waxe ca sase li am mi ñeel bàyyam bu ndaw bi retourneel groupe bi boo ci gisee koo doy lu dénk ko sa capital bu jàlla wañee ko la gos bi am na ñu ne góor ga dafa continuer marchandise ma confier nabi bahira labbe bu mu delloog moom